fetlu lool li ñuy def di leen wax ne que ñun au niveau district mënuñu fu nekk ñu yegg fa ci wàllu communication donc communauté bi am na ci wàllu boo xam ne ñoom rek ñoo ko mën a defal seen bopp avec l'appui des collectivité locale ndax wax fa dëgg yàlla prise en charge bi rek docteurs yi bu buñ ci euh, bëggoon jeexal sax mënuñu ko jeexal wàllu promotion de la santé bi tamit ak euh, bàjjenu gox yeeg relais yeeg yooyu Euh, district bi lu mu leen jàppale jàppale mooy li ci ëpp mooy wax leen message yi ñu leen war a yi ñu war a véhiculer waaye gox-goxaat ya ak fa gën a sori communauté bi seen bopp ñoo leen di jàppale accompagner leen jox leen euh, matuwaay yi ci yi war donc euh, tey bu ñuy wax chef de village yi ci ci suñuy wax ju jëkk ñu ngi leen wax ne quartier bu nekk tey bu ñu amee yéene it yeggale fa message yi mënuñu ko donc il faudrait que Euh, sëriñ ba nga xam ne moo yilif gox ba chef de quartier ba nga xam ne moom lañ ko dénk ak association yi daayira yi daara yi ñoom ñu lëkkaloo waat ci seen biir def travail de terrain bi bu ñu jëlee délégué de de euh, marché bi li mu wax ne déjà euh, ñoom dinañ seet setal seen bopp mais loolu mooy engagement communautaire mooy fi mu ne nii waratuñu xaar li lépp di jóge ci kaw mooy yow fi nga taxaw yaay seet yow li nga mën a defal sa bopp ñoom bu dee mën nañ dajaloo baleel seen bopp seen bopp lañ koy defal léegi nag bu dee seen doole yeggul ci ñu mën a tonni balit bi foobaa de faaw ñu ñu tàllal seen loxo c'est la même chose district bi fi mu ne nii jàpp leen ne ñun ñëpp tàllal nañ suñu loxo ñëpp ndax ba fa dëgg yàlla fi ñu war yegg lott nañ ci yegg ci euh, mu xadimatul xidma moom wax naa ko sànq tamit ci wàllu euh, jumaa yi ak euh, barab yi ñuy euh, sangee néew yeeg yooyu wax fa dëgg yàlla ñu ngi koy ànd ak ñoom di ko liggéey liggéey bu rafet di ci sonnaat di ci soññaat ñëpp euh, charrette yi ñu ngi wax police ak gendarmerie effectivement police ak gendarmerie war nañ def benn liggéey mais bu ñuy wax engagement communautaire mooy nit ki xelam mooy tey jii bu dee dama la ne policier baa ngi ñëw rek nga takk sa masque boo ko rombee tekki ko loolu amul njariñ nit ki moo war a conscient te loolu euh, euh, du du du rek euh, dóor bi ñu li may wax mooy li ma doon wax sànq rek tey jii ñu nit ki ragal yar tànk mu ngi gis yar bi du def waaye bu gisatul yar bi def te te te feebar bi ni muy wàllee bu ñu ko bëggee arrêté du du ay actes yoo xam ne da nga koy def léegi nii après nga jàll ci neneen il faut que nit ñi def ko de façon continue lu lu sax te loolu nag il faut ñu soññante mooy borom charrette bi na leen soññ bu leen mën da soññ sax ba ñu gëm ko te ne Covid bi am na mu ngi faat lu lu jéggi dayo te ku mu faatul it bu paree ci yow mën na la bàyyil ay ay euh, lëgët ci sa xol ak sa dënn yoo xam ne euh, mën na la faat ci diggante bu gàtt ak leneen ak leneen ak leneen bu dee loolu sax mënu la ko ba bu la woowee ci sëriñ bi ne sëñ bi jox nañu ndigal ñu takk masque nga jëm ko essayer tàmbali ba ba policier bi di ñëw te rafet njort ne après bu dul policier bi bu demee ca quartier wam Euh, am na comité boo xam ne ñoom dinañ ko soñ wala bu demee ca marché ba it waa délégué de marché yi ñu ngi koy soñ mais ku nekk bu jàppee xam ne tamit changement de comportement du loo xam ne benn nit ki mun nga ko yedd léegi ci saa si mu tiit nga ne ah mu ngi rey de mu ne waaw takk mais xalam day faay bu delluwaatee dem ca marché ba euh, chef chef de quartier bi xaw ma délégué de marché bi euh, soññ ko mu ñëwaat donc bu ku nekk defee sa wàll wax fa dëgg yàlla rafet nañ njot nit ñi mën ko di def tout le temps ndax doomu jàngoro baa ngi suñu biir li ko mën a rey mooy ki ko amee ñu fexe ba mu takk masque bi du ko génnee kon moom doomu jàngoro ba mu ci am moom dee na ci biiram keneen ki kon du ko wàll keneen bu ñu ko defee noonu noonu loolu mooy li ñuy wax dagg wa euh, jokkalante wàllante bi léegi nag yëf yi moom chaîne la rek comme bu ci nekk maillon la mooy ñun ñun district bi am na loo xam ne ñun la communauté bi lu mel ni Touba sa kanam ci li ñuy mënti def en communication si li ñuy mën a def ci appi social chef de quartier bi délégué donc ku ci nekk jàpp ne yow am nga wàll communauté rurale bi euh, collectivité territoriale yi tamit li ñu mën a jàppale mënuñu euh, wër ñëpp donc am na ci gox-goxaat yoo xam ne faw ñu jëlal ko seen bopp donc looloo tax ma doon wax charité yi daal bu ñu tàyyi marchand ambulant itam bu ñu tàyyi gendarmerie ak police na nekk ñu leen di jàppale rek waaye dëgg-dëgg solo bi na nekk yéen ngeen di wax te baña te bañ a bàyyi. école yi je pense que wax nañ ko euh, parent bu nekk boo fexee ba sa doom buy xëy nga takkal ko masque te ca kër ga ngay waxtaan ak moom bu delloo tamit maître bi waxtaan ak moom dina tax bu duggee ci kaar bi moom dootul ñemeñ tekki ko. Euh, euh, trans bàjjenu gox yi ak relais yi moom duma leen. Euh, soññ ndax ñun ak ñoom ñoo bokk te wax fa dëgg yàlla ñuy def liggéey bu rafet boo xam ne sëñ bi wax fa dëgg yàlla ñu leen koy seereer te ñu ciy def euh, ci façon boo xam ne xaaruñu ci dara ñun sax yenn saa dañuy am kersa parce que dama naan ñun ay fonctionnaire lañ dañuy fay ñoom waaye loolu day wane seen engagement wu bëgg a liggéeyal seen askan ñuy sàkk communauté euh, collectivité territoriale yi jàppale leen bu baax a baax donc conseil communal it ñu leen di tàllalaat loxo te xam ne peut-être euh, ñu ngi doon travail ak relais waaye ñoom ak ñun ak ñoom it faw ñu ànd liggéey ak lu mel ni euh, Safinatul Amal tey jii moom mën na jouer rôle police ak gendarmerie ndax ñoom mëteewuñu ci dëkk bi waaye am na ci loo xam ne Safinatul Amal mën na leen si jàppale donc daal may wax ne ci wàllu paj mi ñu ngi ci euh, ministère de la santé mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax ñu ngi koy ànd ak suñu naataango hôpitaux yi di dajaloo chaque jour euh, ñaari fan yu nekk ci ay bés dañuy daje waa Fawzeyni ak waa Ndaamaatu kon ñun ñu ngi déggante di xam ndax kaayu yu grave yi buñ koy jàll yenn saa yi nga am benn cas bu sonn 4 heures du matin ñu woo la nga woote Ndaamaatu amul fu ñu ko teg nga woote Fawzeyni amul fu ñu ko teg Toscana amatul oxygène ñuy wër-wërloo donc ñu ngi déggante di yoo léegi nag prévention bi fegu bi loolu moom askan bi ñëpp ñoo ci war a ànd ñaan euh, suñu borom jeexal ko fi. ci ci bu gaaw te di xam ne daal feebar bi mu ngi fi mu ngi faat te mu ngi bàyyi ay légat ci nit yi loo xam ne day indi tamit yeneen xeetu feebar yu mën a yóbbu nit ki ni gaaw euh, si wàllu communication bi je pense que bu dee waa RTS comme ni ko préfet waxee ñu ngi fi pour présenter seen plan de communication daanaka li ñuy wax montre yu baax yëpp bokk heure plan de communication pour askan bi daanaka ñëpp day xaw a nuroo dañuy mottalake wante rek te ñoom ñoom ñooy spécialiste en communication ñun docteur la ñu jàngi ñu bàyyi leen ñoom ñu présenter au contraire sax ñun dañ si euh, jàngaale dollaal dolli suñu suñu bos di santaat vraiment sañ bi mairie bu baax suñu président commission sëñ Mambay yenn saay ma sonal ko ne ko ah sëñ Mambay foo leen toll waaye fa dëgg yàlla muy saa su nekk muy wane disponibilité am euh, Morlo nag moom daanaka ci commune ci comité district bi la bokk moom saa su ne yenn saa ñu ne ko moor yónnee ñu sa oto yónnee ñu sa chauffeur mu def ko ak disponibilité boo xam ne ñuy gërëm ñëpp daal ku lim desal euh, waaye nit moo matadi rek boo amee lu dëng ngeen jàppale ci waaye xol bi daal ñaan nañ wax fa dëgg yàlla sëñ bi euh, dimbali ñu ba liggéey bi daal mu ñu dénk mooy ñu féetewoo faj bi ak fegu askan bi mu dooleel ñu te dimbali ñu ñu def ko ni mu ko bëggee moom nag mi nga xam ne mooy Serigne Touba ñu dénkaat ko ñaan bi ba suñu borom génnee fii lii génnee ko ci àdduna bi yëpp ba ñëpp mën see mucc. Touba am na ñaari CTE moom laa wax comme hôpital Fawzeyni am na CTE fi mu ne nii am na ay cas grave yu fa hospitalisé Toscana tamit euh, Touba Toscana muy euh, benn centre boo xam ne waa daayira Touba Toscana ñoo ko tabax. Euh, si ndigalu mun Muntaxa ñu abal ko district bi ñu aménagé ko ministère de la santé équipé ko ba fi mu ne nii ñu fay hospitaliser tamit ay cas grave donc euh, fi mu ne nii foofu am nañ fa 3 cas tey te euh, au niveau de Fawzeyni on a 14 malades hospitalisés donc muy wane ne que ay cas grave am na nombre de yi tamit fan yi quand même mënuñu wax ni mu ngi yokk yokk bu jéggi dayo problème bi du yokk bu jéggi dayo mais liñ li ñu liñ même bu stable suñu xel dalul li ñu yéene mooy mu wàcc ba ñëpp xam ne mu ngi wàcc te ñu xam ne nit ñi ñu ngi def li nga xam ne mooy liy wàññi feebar mooy boo doxee ci mbedd mi koñ ba koñ doo gis kenn ku takkul masque pour man loolu mooy défi bi euh, tey dañu war a ñun ñëpp lëkkaloo dem xool nu ñuy def pour xeex doomu jàngoro bi te kenn bañ ci gersu xool sa morom ñun nañ jàkkaarloog benn ennemi bi ñu am muy Covid 19 jërëjëf.